kii di rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili ak seeg yéen kon ci xibaaru ngoon gi la ca gën a fës anam yi ñu ni Karim Wade moom la génnee kon kasop rëbës coow li jógat yi ak la ca Jeune Afrique siiwal Farba Senghor ni Karim mësta signé lenn dañu ko forcé mu génn réew mi Zahra Iyane Thiam ni bu protocole amee bi président Macky Sall signé weesuwul protocole bi suqali kon réew mi ci biir gendarmerie la ñu la ñàkkee bakkanam Ibrahima Diallo kon faatu euh, cib euh, garde à vue euh, ña ko daal jege jàpp ni guddi gi yëpp dégg nañu ko muy yuuxu gannaaw dóor yoo xamante ni moom la ko doon dóor ca biir gendarmerie ba Ligue sénégalaise droits de l'homme RADDHO ak Amnesty International ni na mbir mi leer enquête la ñu bëgg ca na mu gën a gaawee ñu ubbi ko ñu ca tudd ci mbir mi topp leen kon ba xam la xewoon foofee dëgg bisub tey àdduna bi jagleel ko jàngoro jabet feebar bi law war a mën a taxawee loolee la ñu indi ci thème ren bi ñu tase kenn kuy dund ak feebar bi yëpp na ñaar fukki jafe-jafe yi nittali nañu ko euh, ak la nga xamante ni nag moom la bëgg ñu taxawoo leen ngir prise en charge euh, bu na a yemb des na dellu sit ci diggante Sénégal Afrique du Sud ci wàllu football ak coowal arbitrage loolee du ñu ni euh, guléet kon Sénégal di ko dund la cay kalaame nag ñuy faral gis du jur lu bari lu waral lu ni mel ak yabel la wala lan def yi ponk yaa nga kon ni suut ñu yaatal ko dellu rafetlu woon bi ak télévision Futur Média tàmbale ko ak communiqué kon bi euh, tukkee euh, ci ñi nga ni ñoom ñoo di euh, magistrat yi wax nañu nag ni daal lu jëm ci comité de juridiction bu cour suprême ñoom daal nañuy daje fukki fan ak ñeent gi kon ca weeruk novembre ngir wax ak seen i membre ci lu soxal loi organique cour suprême ak statut magistrat yi ca fanweer ya mu ëmb googee kuréel ñaar fukk juróom benn yi dikkoon nañu ca ndaje ma ñoom ñëpp nag àndandoo eh, di sàkku ñu dindi ca na mu gën a gaawee daar daar sax la ñu ko wax retrait immédiat waaye it buñ ca teg benn condition projet de loi cour suprême bi ñu ni kon eh, adopté woon nañu ko ci ñaari fan ci weeru novembre gi weesu loolee nag eh, ñu jàpp ni dëppoowul ko nag seen i charte wax nañu it ci assemblée intérieure bi nee nañ nañu fa delloo texte bi ñu xoolaat ko waaye it âge bi nga xamante ni moom la magistrat yi war a dem à la retraite nee nañ ca yokk wala doxalee noonee ko teg si tëralee euh, loole nag la ñu xamle ci seen euh, ndaje ma ñu amaloon l'enquête bi nag ña ko def ñoom ñoo di waa Jeune Afrique yanaanam la Karim Wade génnee kasop rëbës bari na lu ñu ca wax la mu ca indi tontu moom Farba Senghor bokk ci parti démocratique sénégalais euh, moo di ne Karim Wade dañu ko forcé mu génn réew mi te bu dee signé am na amul dara loo xamante ni moom signé na ko Zahra Iyane Thiam moom jàpp ni président Macky Sall ma ñu cay protocole bu émergence ñu ànd ci ak Alassane Ba Modou Diop. mbirum Karim Wade dellu si waat ginnaaw ab enquête bu Jeune Afrique publié ministre bu woon nag amut benn signature bu mu jege ci wàllum protocole ki xam li ni mel di libéral bi yoonu Karim nekkul ci loolu ndax Karim nee na leen moom su sañoon du génn ñoom ñoo ko génne donc ay protocole yoo xam ne ka ko def moom moo ko def ak boppam mën nañ ne c'est un protocole unilatéral parce que protocole bi benn benn tànk lay doxee muy côté Macky su fekkee ne am na. benn protocole le président Macky Sall am mooy protocole d'émergence bi nga xam ne. def na ko ci digganteem ak askanam. lu weesu financement yi dinaa seet naka la ñuy def ba liggéey wëgg teen yeeg nekk ci euh, champs yi di bay mu metti loolu mu xool nu mu koy wàññee. doomu njiitu réew ba woon di maître Abdoulaye Wade ñu forcé ko mu génn réew mi am ay conditions yu fixé wante ci fàttali ministre de la justice di maître Sidiki Kaba newoon na bu ko neexee mu dellu si biir réew mi mu di ab défi ci gouvernement bu président Macky Sall. normalement soo amee grâce yaa ngi ci sa liberté bopp. parce que li nga waroon tëdd dootoo ko tëdd léegi ministre la justice nag dañ koy jàpp ci làmmeñ li mu wax nee na Karim fu mu nekk moo fa bàyyi boppam moo tax Karim Wade jàpp na ne dana ñëw su fekkee ne li ministre wax dëgg la ci moom dëgg la ci gouvernement bi que amul benn exil forcé moo fa bàyyi boppam Karim dina dugg si jàmm te du am benn yëngu-yëngu mais su dul loolu Karim dana ñëw ci lu néew nag su ñëwee danañ xool Sénégal yéenay témoin ngeen xool ndax li ministre wax dëgg la wala du dëgg. Karim Wade la comme ñëpp mën na dem mën na ñëw nu mu ko neexee fan yee ca gannaaw déggoon naa mi ngi Paris kon bu bëggoon ñëw senegal am naa yaakaar ne dina ñëw nu mu ko neexee euh, vraiment loolu daal pour ñun lu weesu la. débat bi dellu si waat wante bu ñu sukkandikoo ci ministre conseiller bu njiit réew mi histoire wu Karim Wade suñu gannaaw la nekk wante Farba Senghor di fàttali ne Karim Wade du yàgg dara mu dellu si fii ci Sénégal occasion ñu gën a am ay xibaar. ci baayam lii moom dañoo bëgg mu leer communiqué la ñu ca génne Ligue sénégalaise des droits de l'homme kuréelu Corrado ak Amnesty International section Sénégal lan moo xew ca diwaanu Kolda ca biir gendarmerie ba euh, ba kon Ibrahima jàlloo ñàkk ca bakkanam nee nañ nañu ci ubbi yàpp euh, l'enquête ca na mu gën a gaawee bu dee nag am nañu jàpp ni seen loxo ma nga ca biir ca googe faat na leen yoon topp ba ca kon euh, cëppaandaw la moom Ibrahima Diallo moomee ñu ko doon toppee daal ni dafa sàcc ak Eh, lu jege fanweeri yaat moom moomee nag eh, ca anam yu métti yooyee ña fa jege ca dëkk ba nee nañ dégg nañ ko guddi gi yëpp mu yuuxu laata gendarmerie di génn ni faf na faatu ñu fekk ji Fap lay Jàllo ab ndaw bi amee lu jege fanweeri at tey wuyoo ci turu Ibrahima Balde moo faatu ca biñ ko dencee ca bérébu gendarmerie bu Medina Yoro Fula moom Ibrahima Balde mi dëkk Saare Yoro Egge di dëkk kaw bu département Médina Yoro la moom dem si yàlla ji dañ ko doon tuumal sàcc ab fas moo ko taxoon yegg ci béréb yu gendarmerie bi Médina fu la ay mbokkam ñooy expliqué. ay témoin ñoo ñu wax ne gendarme yi ñoo duma ba faat suñu mbokk mi yuuxu yu mu daan yuuxu tax na waa quartier bi yëpp jóg biñ koy duma dañ ko simmi woon ñu loxo yi te ñu daal di ko takk ci kaw ab barre de fer ab table bu Ibrahima di ñëw ci gendarmerie kenn dooru ko woon te kenn jàmm ko woon na paaka tay o lappaaka o lappanooka ɓe njuwaanamo laɓi chef de quartier o délégué de quartier bi ci boppam wax na ne ñoom ñëpp dégg nañu yuuxu yi xale bi doon yuuxu mujj gi dañoo jegewoon poste bi ngir déglu bu baax a baax dóor yi noonu la moom en tant que délégué de quartier mu dal di ñaan gendarme bi tax mu bàyyi waaye boru une heure trente guddi gendarme bi daal di ko yee moom délégué de quartier ngir wax ko ne kiñ fi téye woon dafa mujjee faatu seedeji quartier o fof seetima wondema kamɓe ɓe ceetima suka o ko luukata to gendarme toto toto o wonno ko o luukata toon lappe ɗe o lappaɗe ci ay kaddu yu woor aji ndem si yàlla ji biñ koy indi ci bérébu gendarmerie bi daa amee woon ab gaañu gaañu ca biir bi mel ni ku ñu jam paaka muy ay kàddu yi ki ko tuumal weddi bu dee li nu mel amoon na ay yérem dinañ doon tax deret te nee na it ci kanamam la ko gendarme bi simmi ay yérem te amul woon benn gaañu gaañu ubbi nañ si ab lanket niw aji ndem si yàlla ji waa sapeur pompier ñoo ko daal di yóbbu ca morgue bu hôpital régional bu Kolda mu doon wuyoo kon ci turu Abdoulaye Baldé wax ci jàngoroy diabète ak ay million yi millions yi nit yi dund ak moom ci àdduna bi Sénégal téeméer yoo jël jàpp nañu ni lu jógee ñett yi eh, ñu ngi yàq eh, feebar bi ca wàllu woowu nag bokk na li tax mu gën fi law yaram ngi nit ñi bëgg waaye it eh, lu jëm ci li nga xamante ni moom moo di toogaay bi tàggatu néew ñu koy def ñu gis ni nag war nañoo gën a mën a taxaw gën a ñaax ndaw ñi ndax benn xeetu diabète bi mi ngi gën di bari ci ñoom loole nag atum ñu bàyyi xelit ci wàllu thème bi eh, diabète ak eh, traumatisme nu ñu ca mën a fàggoo dañ ci ànd ak Maimouna Ndiaye fii ci senegal nee ñu téeméer boo jël ci askan wi lu ëpp ñaar ya am nañu jabeet ñaar fukki million ak juróomi doomu aadama fii ci Afrique ña ngay dund ak doomu jàngoro googu waa OMS nee nañu fi mu toll nii jot na ñëpp jug ci. pour endiguer la vague croissante de maladies non transmissibles dont le diabète. ci Afrique liggéey bi des na lu bëri ba tax na maa ngi woo nguur yi ñu gën a baral seen loxo bokk na ci programme yi ñu war a taxawal ngir lekkin mu sell askan wi di koy am waaye nit ñi di tàggat seen yaram ak it xool lépp lu jëm ci tuxum cigarette ñu wàññiku bu baax a baax bokk na ci it alcool gi. une activité physique régulière et qui réduise le tabagisme et l'usage nocif de l'alcool. feebar boo xam ni ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram gi nee na bëgg na cee gën a xar tànk tubéyam am na garab yoo xamante ni ak pharmacie nationale d'approvisionnement dañuy bëgg mu disponible fu nekk mooy générique yi fas yéene nañu continuer fexe ba mu disponible partout ñu ngi subventionné insuline bi mais ñu bëgg ñi am diabète ñu cëral bu baax lépp luy hygiène bu fekkee association bi nga xam ni ñooy dimbali ñi nga xam ni dañoo am doomu jàngoro bii di diabète ñoom nee nañu lañ doon dox duñ ko bàyyi xanaa kay yokk ko bu baax. diabétique bi nga xamante ne moom la ñuy wax diabète ko xale yi te diabète de type 1 di nga dépenser deux mille cinq cent par jour si deux mille cinq cent yooyu kooku ñu ngi ko defoon avant dévaluation mais ak dévaluation bi gis nga ne environ cinq mille francs cinq mille francs boo ko naree yóbbu weer bi dina la def soixante quinze mille. facteur de risque yi boo ko identifié mën ko moytu. dem ba muy teel nga xooli sa yaram ci ñi mu gën a baax ñi nga xam ne seen at yemoon naag ñeent fukk wala lu ko ëpp loolu ñu ne dina dimbali askan wi bu baax ngir ñu mën a fagu fii ak 2040 ñi nga xam ni ñoo ko war a am ci askan wi ñu natt leen ci juróom benn téeméeri million ak lu teg. góor gi lii léegi mu romb kon ñaar fukki at moom mi ngi dund ak doomu jàngoo ak li nga xamante ni moom moo di kon euh, jabet moonte nekkul woon loo xamante ni euh, seenu woon na ko ci wàllu bindam waaye it sawar goo xamante ni sawaroon na ko tey ji jàpp na ni ci ñi yor feebar bi bari nañu ñu nekk ci ay jafe-jafe rawatina ñaamul benn prise en charge Mame Birame Diouf moo giseek moom moom ci weer wi la am lu toll ci juróom-ñaar fukk at ak juróom-ñaar ci ñeent fukk at ak juróom-ñaaram nag la am jàngoro ji di diabète maanaam ci atum 1991 Idrissa Ly di ñu wax ni mu ko yëgee. ma mos a feebar après ñu ne il faut que ma dem seeti suñu docteuru service ñoom nag ba ñu laay faj dañu xool tension bi jox la euh, tour ndox bi ñu xool am na des des bandelettes suñ ko xoolee rek daañu ne ah yow de am nga suukar. waaw loolu noonu la sama jabet feeñ. état bi gën a am taxawaay ci ñiy dund ak eh, feebaru jabet loole nag doon na xeexam rawatina ci paj ba nga xam ni ñu koy amal. diabétique euh, dañ koy wax pour mu def régime te bu amee yenn âge yi régime bi dootu ko doy alors il faut que mu jël ay garab garab yi moom la ñuy wax antidiabétique oraux. garab yi cher na wante man yàlla def ma dimbale ba may liggéey dama adhéré woon ci benn mutuelle de santé nga xam ne garab bu ñu ma bindee rek alors bu demee genn wàll gi laay fay. waaye nag cher na ci ñi nga xam ne amuñu loolu mënuñu ko te nekk ay béykat wala ay sàmm wala ay néew doole nekk ci biir réew mi te sori moo tax nag ma profité at bu jot dañuy ñaan état bi comme ça ñu dimbale diabétique gi ñu seet nit ñuy defalee feebar bi maladie sociale pour ñu mën a jël en charge bu jot ñu def journée mondiale du diabète waaye la ñuy jooy ba at bi duñ ci gis benn yokkute. mu yëkkati kàddu yi di jëmale ci nit ñi ngir diabète nag ñu gën kaa xeex. te ñi mu gën a garaaw mooy ñi ko am te xamuñu ko te ñu ngi dox ànd ak moom ñu ni nag boo amee ñeent fukki at foo toll da ngay dem di saytu si suukar yomb na nga. fukki fan ak ñeent ci weer novembre bi ñuy màggal xeex bi ñuy jëmale ci jabet ci àdduna si mu doon jàngoro joo xam ne nag li muy dal ci ay nit day gën a yokku. ñu yori suukar si fu mu toll ci marché bi gannaaw ba ñu naan manqué na ka manqué wul jàpp nañu ni 13000 tonnes ñu ngi ko stocké ci ay euh, magasin bis bu jot ne nañ dañu ñu génne ñoom ñooñee euh, junni tonnes euh, dugal ko ci biir dëkk bi ba tax na acteurs yi ña ngay laaj fan lay jaar bëgg ministère bi ñu dénk wàllu commerce jindi leen ki ne Dem lu jege fukki junni tonnes ak ñett ci suukar mu ngi ci magasin yi tege ay bon yu ñeenti téeméeri tonnes ñu fas yéene ko jébbal ay commerçant lii nag ute lool ak li ñu gis ci marché bi ndax suukar jafe na lool la. juróomi weer yi ci ginnaaw mille tonnes de sucre livré nañ ko ci 79000 tonnes yi ñu recevoir woon donc euh, bon naka la ñuy def ba mu manqué bon bis bu set dinañ livré 800 à 1000 tonnes de sucre. ñàkkum suukar bi ñoom acteurs yi ne xamuñu lum leen di nuru ndax bu ñu xoolee li ñuy livré ren ji mat na ñaari yoon la ñu daan livré. 500 tonnes 400 ak 500 tonnes la ñu doon jaay par jour te kenn mësul wax waxu suukar manqué na suukar lu muy manqué bariwul xam ngeen ko waaye actuellement ñi ngi jaay double bi junni tonne ba pare ñuy wax yi mënul nekk. kon nag suukar si fan la ñu koy jaayee bu fekkente ne yenn ci marché yi gis fa suukar dafa jafe lool. li fi jot a génn rek ci suukar dafa jéggi dayoo. te ñun yaakaar nañu ne. am na ay commerçant yu jënd suukar di ko jàllale gannaaw réew mi du ko jaay ci réew yoo xam ne tey dañu am jafe-jafe pour am suukar donc commerçant yi nga xam ne euh, yàlla xam doy na dem jaayee ko foofu am ci njëg bu gën a am solo moo leen gën a ñu jaay ko seen réew loolu mooy problème bi. yàggul sax ñi ngi doon yëgal jëwriñ ji dénk wàllu njënd mi ak njaay mi ne bu jëlul ay matuwaay ay jafe-jafe dina am ci wàllu suukar bi. nañu fexe nañu fexe ba xool frontières yi. ñëw arrêté camions yi nga xam ne dañ koy jéggi dem di ko jaayi ci bitim réew donc au détriment du du marché sénégalais. lu aju ci màggalu Touba bii nag ñoom acteurs yi di ci dalal xel yi ne lu ëpp ñaari junni tonnes sax yóbbu nañu ko ca Touba bu weesoo itam am na ay matuwaay yu ñu jël ngir suukar bañ a manqué benn yoon ci màggal gi. suukar siit waaye ceeb bi parfumé bi ñu doon wax dafa manqué ba ñu bari jubloo ci euh, kon ceebuk mbay mi soxna yi nag wax nañu ku ca ne ak bu la gënal ñenn ñi jàpp ni gannaaw pexe amul faf nañu rek jàpp ci li nga xamante ni moom moo fi nekk jamono ji mu di reportage Adiatala yenn ci kër yi waxuñu dara ci ceebu mbay bi ñuy jëfandikoo ndax rek ñàkk ceeb parfumé du seeni sago jigéen yi ñu dajal xamal nañ ne togg ko coono kese la waaw léegi ceeb bu waalo bi lañ jël mais neexul togg nag moom parce que day non seulement da ngay dool da ngay li dëwlin boo doon def litre di nga def litre genn waal di nga def tamaate bu bari 150 la doon jar léegi def nañ ko 350. waaye ceebu mbay moom wax dëgg yàlla moom neexul neexut mënu su koo lekk daal noonu mënuñu koo lekk ñun ñuy jaay moom wax dëgg baaxul ci noonu moom ndax dañuy tiim di jaay muy sedd bu fekkee ne kër la moom nga yekk lekk moom baax na waaye nag mun daal mun sañoon daal ñu wàcc ceeb yëpp ceeb bu waaye bëgg jënd daal loolu daal mun sañoon noonu def bu weesoo coono bi ñàkkum qualité bi tamit ŋàññ nañ ko ñuy ñaax nguur gi rek ñu def seeni kéem kattan jàppale yi ñi di baykat yi ngir rek mu nekk ceeb bu ñu mën a jëfandikoo. mais li ñuy bay di dundee day fekk ñu defal ko ba mu baax kenn traité wu ko kenn kiiw ko moom da ngay ñëw xeer yi bari na moom daal doy na waa daal. bëgg na ndox bëgg na diw ndox mi barki démb doon ba ma amul ceeb kii di ko ñànkatan ñànk tàngoor gi dama koo tuur muy lu benn jigéen bi nga xamante ne nanguwul feeñal kanamam di yi muy xamal ni rek togg ceebu mbay mi njëriñ kese la ci gis. boo sóoree ñaari kilo mu jox la ñett boo sóoree ñett mu jox la ñeent ndimbal jabool la. ñi ko bëgg a togg daal bu ñu ko bëggee togg togg ko. laata askan wi rawatina ñi yeewoo ci capital bi di tàmm lekk ceebu mbay mi dina ñu xaarandi. li ko waral rek mooy dogal bu nguur gi jël ngir rek tere ceebu parfumé bi ñu koy jaay am na ñu ne tamit nguur gi dafa waroon def rek bàyyi ku nekk di tànn ceeb bu ko neex. ci wàllu gëna a defaraat yenn produit yi transformation bi loole nag ña nga koy tàmbalee waxtaane du ñàkk wàllu ceeb boobu saafaraam ci ak ay bés bi ñu jagleel wàllu entrepreneuriat ubbi naay buntam Aïssatou Paye muñ fa àggal semaine bi ñu jagleel entrepreneuriat ci àdduna wërngal képp door na li ci gën a nag bokk na sukkali wàllum entrepreneuriat indi si lu bees ba noppi gunge ndaw ñu si nekk. boo waxee entreprise nag mooy fexe ba li nga xam ne ñu ngi koy béy ci réew mi mbaa li nga xam ne ñu ngi ko am ci suñu suuf Sénégal mu jëm ci wàllu mine jëm ci wàllu béy ñu fexe ba transformé ko maanaam soppi ko ba indi ci valeur ajoutée loolu mooy yokk xëy ci ci ndaw ñi. kon initiative bi boo xam ne dafa jëm ci entrepreneuriat nu ñu koy rafetlu di ko jàppale di ko jaajëfal lu baax a baax. ba tax na nag ay activités yu bëri dinañ ko amal ngir gunge jeunes entrepreneurs yi. c'est la troisième saison. donc on a rajouté bii mooy ñetteel bi yoon bi nag ñuy amal li nu mel ci wàllu jongante bi nga xam ne tàggatu bi am na ci ci ñaari at yi weesu yokk nañ ci wàllu caravane boo xam ne dina wër ndakaaru ak banlieue bi dem fépp ci Sénégal nag ngir fexe bi la programme ndaw yi rawatina ñu nga xam ne ñoo ko entrepreneur yëpp daal ci jot. accessible à à tous les jeunes entrepreneurs du Sénégal. thème ren bi nag bu dee wàllum agriculture lañ ko jagleel am na yeneen i yoo xamante ne. dañ ci waxtaan ci semaine entrepreneuriat bi lee dañuy am yeneen thèmes yoo xam ne lépp loo xam ne dafay laal ci entrepreneuriat lay nekk par exemple mbirum assurance naka la ñuy def pour gestion de risque ak yooyu après dinañ am yenn formation yoo xam ne dañ koy def ngir euh, euh, comme li ñuy wooyee compétence de vie entrepreneur yi mën jublu tamit ndax euh, ñu nekk polyvalent lu toll si ñeent fukki activité ak juróom nag dinañ ko amal ci biir Sénégal lu ci mel na Thiès Saint-Louis ak yeneen i région manifestation bi nag ñi ko organisé di Jokolab ñu profité si nag di si rendre hommage ki nga xamante ne moo doon président bu chambre de commerce feu Mamadou Lamine ñu dëgmal màggal gi ñu daal di soldat yi dem kon ba Touba dem ca résidence Khadimou Rassoul foofe nag ñu fay faral di dalal ay kilifa yi ci visite jàpp nañu ni juróom-benn appartement moo fa nekk benn bi ñu jagleel ko xalif général euh, kulli murit foofe nag dina fay faral euh, di euh, kon recevoir yenn ci taalibe yi boobee résidence nag bu weesoo màggal gi jàpp nañu ni yaat mi yëpp saa su nekk du ñàkki gan Pape Faxa Gningue lañu ñu ci àndal la kër Serigne Touba bi janook jumaa ju mag ji ni ñu ko tabaxee daal di yéeme lool ndax lépp loo xam ne nit da koy soxla mu ngi ci biir résidence xaadim rasoul nag ganu xalif général des murit ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci njaboot gi. moo ñetteelu xalifaam bi mu toog gis ne jaadu na sëriñ Touba am ay kër yu bari ci dëkk bi ngir dalal gan ñi nga xam ne dañoo jóge fu sori. wala ñu jóge fu jege te ñëw ci dëkk bi te sëriñ bi tax leen a jóg ñu am wàccuwaay woo xam ne bu ñu fi ñëwee danañ mën a dallu. Euh, loolu nag ci année quatre-vingt yi la la ko sëriñ Abdou Lahad xalaat. du màggalu Touba rek parce que même boo dee xool yeneen màggal yi nga xam ne sax day am ci dëkk bi léegi yooyu it ba tey mm, ñu ngi fi dalal. at bi yëpp kër gi saa bu ñuy fekk fi ay gan. koppar yu bëri nag la ñuy génne ngir berndeel gañ ni dafa nekk loo xamante ne ñun fi mu doon nii moom gan du bettee. boo ñëpp rek. ñëpp rek mën na jógee ci xalif général ndax ndax maanaam lu fi waaye ndiir rek moom mel na ne moom ci xalifa général rek nga ko nga ko jëlee. nga sëriñ bi moom euh, màggal gi bernde la def ne woon li dale ci ganaar ba ci gileem loolu mooy ñu tuural ko ci deret loolu nag mur yi dañ ko suivre dañ ko appliquer booy dugg rek ci bunt bi mu ngi am ab appartement bu rafet lool ñu jagleel ko kii di xalif général des mourides appartement boobu tudd Daaru Salaam ñu koy defaraat foofu nag la xalif bi di dalal taalibe yi. Euh, defar fii euh, sant fois Daaru Salaam ab batiment muy résidence bi nga xam ne euh, fi la Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké mooy bu nekkee ci kër gi fi lay nekk te ñu doon ko yeesal ci at mi sant ko waa Daaru Salaam. Daaru Salaam garage moquette la am. am salle bu mag a mag a salon ci digg résidence bi ñu gis fa ab case bu moderne ay salle daal di koy wër juróom benn ci appartement rax ci dolli ña fa nekk ni ñuy dalalee gal ñi mucc na ayib nekk noonu ci yoonu màggal gi daal di wax lu jëm nag léegi ci wàllu tàggat yaram ak génnu kàdduna Laurent Pocou ancien international ivoirien ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeenteel yaatam kon ci la génn àdduna jàpp nañu sax ci wàllu taarixu Coupe d'Afrique nekkoon na fi euh, meilleur buteur ak Côte d'Ivoire na lu toll ci juróom-ñaar fukk euh, ci ay euh, sélection bu muy am ñaar fukki at ak juróom-ñaar nag ci la njëkk signé contrat professionnel am kan moo ñuy gën a xamle ak moom Mamadou Fall mooy dellusi ay jaar la Laurent Pokou footballeur bu mag boobee bu Côte d'Ivoire wuy ji boromam monument bu football africain Fatou moom ñu jàpp ko nag meilleur joueur bu histoire football bu Afrique moom mi nga xam te ni moo yore woon lii di record bi ñu dugal ci coupe d' Afrique des nations faatu na dibéer gi kon gannaaw ba muy am juróom benn fukki at ab feebar bu ko tëraloon lu yàgg moo ko yóbbu. chroniqueur sportif bi di Abdoulaye Diaw ni joueur bu xerañ la woon. bi Laurent Pocou feeñee au début des années 60 fokk ñuy segg dem indépendance dafa nekkoon ku sagal Côte d'Ivoire le président Houphouët-Boigny l'aimait bokku daf ko daan woo léeg ci bureau toog di waxtaan. Laurent Pocou am na juróom ñaar fukk sélection dama arrondir mën na nekk 72 mën na nekk 73 jëm 70 yi euh, wóor na. juddoo Treichville Laurent pooku bokk ko ci joueur yu wane Afrique. Euh, séjour ba ñu def ca Brésil benn match lañ gagné. contre la Colombie Afrique gagné ko trois 1 Laurent Poko est buteur deux buts yi moo ko jox euh, Jean-Pierre Tokoto kon xam nga déjà euh, fierté boobu euh, Côte d'Ivoire gën na ci góor. Abdoulaye Diaw jàpp ne Laurent Poko. gënul ku ndaw kon faatom bi fa mu ànd ak ay honneur. France Côte d'Ivoire au lendemain du décès de Laurent Poko Côte d'Ivoire la juddoo doore fa jeexale carrière en France. ci diggante Nancy ak euh, ak Rennes waaw France Côte d'Ivoire fédération française de football nii bu ëllëgee à Lens ci France Côte d'Ivoire bi un hommage sera rendu à Laurent Pokou. ñu jàppoon ko mu nekk vitrine bu njëkk ci football ivoirien bi moom mu ngi am contrat bu njëkk euh, professionnel euh, ci 1974 gannaaw bi moom ñaar fukk ak juróom-ñaar moom nag daal dinay marqué li nga xam ne moo di championnat bu France laata muy doon entraîneur. la mu jàppoon ci football moo di da di bànneex laata dara. gërëm ko moom Mamadou Fall du ñàkk ci 20h bi euh, ñu desiwaat ci jafe-jafe arbitrage yàq nañuy faral di sonal Sénégal lan moo ko waral waaye te lan ca war a def amoon nañu yéen ànd ceeg yéen waaye euh, du ma sotti 20h incha allah du ñàkk ngeen daan ci ak Sara Cissé bu boobaa ci kalamana saraan lay doon ñu jaajëfal leen nag bu weer ci ànd beeg ñun ci 19h30 bi rédaction bi ni ko waxe ci simili yu néew dana dellu si jërë ngeen jëf.